bokki taalibe yi di bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi bokki nga xam ñoom laa bokk na nekk fii ci daara bokk di liggéey di liggéeyal Cheikh Abdou Lahad léegi dañu may laaj li ñu may laaj nag jot naa ci lool am naa ci lu ma xam waaye am naa ci loo xam ne mënu ma ko xam njël bee la ñu may laaj ba muy samp daara ak ba muy door a daara loolu nag li ci xam moom moo di sëñ Abdou Lahad ko jëkk a jox ci may ko ko muy daara suñ su sëñ muroo ko may sëñ Moustapha Mada moom moo ko mayoon léegi da fekk kàbb bëgg ay tool mu ne ko mën naa day fu ñuy wax ca Saloum fa dend ak ñu di ko wax sori na lool te sëñ ni man day fu ma liggéeye rek laa bëgg ak fu ma jaamu yàlla sëñ jox ko foofa moo ko jox mu ko joxe itam toog na ba quarante cinq sëñ Mourou Moustapha laqoo mu sanc barab ba moom ko sancee tam mu nga fa jëkka nekkal ku ñu wax Baye Mbacke Dia ak sëñ Moussa Guèye ak Baye Massaer Ñaan ak sëñ Mourou Guèye ak ñeneen ñoo xay dëgëru maanaam ginnaaw waaye bisu sant bi moom ñii dafa ñii dafa bokkal na waaye Modou Gueye moom moo yoroon dëkk bu ba ni fi jógee waaye Moussa Gueye moo doon yilimaan ja waaye monsieur ñaan moo doon noddkat ba moo doon nodd ñii ñoo fa nekk ak ku ñuy wax sëñ Mor mut si la ku ñu wax sant si la ku suñu wax bàyyi muur fa nekk wër penc ma ginnaaw bi nag la fa ñi ci des ñëw waaye ñoo daal mooy ñu ko sos ak ku ñu wax Cheikh Cheikh Gaye ñu naa ko Cheikh Diop moo jur Abdou Lahad Diop ñu ndax Lahad Diop baada moo ko jur ku ñu wax sëñ Ibra Fall mu gébalit nekk na fa doon teelu bu mag waxaay foofa la foofa la taawloo door a ñibbi këram ñi door ko yebal mu door a ñibbi Kajoor ñii daal ñooy sos ñooy sos añaan nag sëñ bi ca Daaru Salaam ñu dafa nekk dafa liggéey sëñ bi liggéey sëñ bi nag ba ma ko xamee léegi nu bokk ne lu mu béy mosu caa mos du fepp dugub du fepp gerte du fepp rek jox na ko waa ko ñun ñi ko doon béy sax loolu sama sa loolu sama sa danaa bu ngeen ko defee tam waa ko suñ ci wàññee ko moom xëy nañ te war a booloo dañ te war a loolu dañ koy wàññi yàlla dogal mu jógee mu jógee foofu di tas ay daara fenn fu ne mu ñaan fa daara moom fa jógee dem na gelongel gelongel nag moom sax moo jëkk kàbb ndax nekk na gelaw ngel ba am fa ñaari at ba ñett mu door faa jóge dem door dem kàbb fekk fa sëñ Moustapha sëñ Moustapha may ko may ko fii may ko Daaru Salaam mu dëkk Daaru Salaam bokk mu dëkk fa ba mu fa dëkkee nag mu fa jógee nag la door a ñaan ay daara yu bari mu joge jógee dëkk bu ñuy wax fii fii laat ka dëkk xur ci xur wi caaween booba xur wi lañ koy waaye booba caaween la dem ñaan fa suuf ku ñax baay moor mati ja itam mooroon mbokkum baay mbakke ja la ko fa yóbbu woon mooy moom ba fa demee am na fa ay at ñaari at ñetti at daal ñaan fu ñuy wax taawe ñu naa ko mbaraan ba demee taawe itam ku yox bàyyi mut sàmm moo ko fa dogal ay tool mu nekk fa cinquante sept la fa ne cinquante huit ba soixante deux soixante ñuy noot ñuy ñuy julli mu jóge fa sant fu ñuy wax mbajaan ba mu demee mbajaan it 62 fa dem 63 64 ba 64 jeexee mu jóge fa delluwaat Daaru Salaam bukki la jiitu loolu nag am na kaabu daara dëkk dafa am dafa dëkkan am na daara jëmatil jëmatil it sëñ Abdou Mbar moo fa amoon ay taalube nekk fa ba jóge fa mbooloo moo wàññi ko waat dugg ci suñu blaat taalube suñu blaat moo ko yóbbuwoon jëmatil bu mu demee jëmatil nekk na fa ay at yóbbu na fa ay nit ñu nekk na dëkk bu ñax fi itam ci de ci mbaakul ñu wax nga yéen ngëyee nit nekk na fa ay at dafa baylu nekku fa sax ay at waaye dafa doon baylu di di seeti ay at loolu lépp daal ci lu ma mu jóge fa dem fu ñuy wax Mbadiane Mbadiane nekk nañ fa ñetteel ba ñeent ñu jóge fa door a ñibbi waat Daaru Salaam ñibbi watee Daaru Salaam nag 64 mu ne fa 64 65 66 67 68 suñu fa du làqu magalaat ma 69 mu jóge fa dem Touba nekk fa ba nii fa jógee ba mu fay dem itam la mu wax nekk naa fi ay at di ñaan ci àll bii wax naa ko Senghor wax naa ko kon waaye mënuñu ma cee may ginnaaw mënuñu ma see may nag léegi naa dem fa mu ne mën naa faa jox muy dama ne am na àll sa wet ak déyeer yi muy muy tey fii nu ne am naa foofa frontière boo xam ne mën naa la caa may foofa laa la mën a may fa may sëñ bi ne ko man de foo mën a may te man faa di jël suñ tubaab rek mën mu daal di mu beral la tuddoon ab déeg la moo di mu tuddee ko Touba doole ci beral di mu nekk fi mu di fi liggéey sëñ Touba lu mu fi liggéey doon sëñ Touba ko lu liggéey lu ne ci liggéey sëñ Touba la mu jox ko doomu sëñ Touba yi comme man damaa waat ne la mu doon liggéey lépp joxal na ko sëñ Touba moom loolu moom leer na moom ni mos ta xëy te xëy sëñ Touba mos ta gont gont ci diir lu ne lu mu mos a liggéey ñi nga xam ne nekkal na sëñ Tuubaa Daaru Ndar sëñ Sooybu mbaa sëñ Fallu mbaa sëñ Saliwu mbaa sëñ Amsatu muy ndeyam ñii la kon séddale saa bon bàyyaa ba noppi itam day fam ngar yi séddale bu yàkkamte naa lii ngar di woo ko moom lii ngar di woo ko moom lii ngar doo nga xam ñooña waa dëkk ba ñooy maase bu ñu xëyalee tey jii sëñ Fallu bojjal ko bu ngaram àggee ñu xëy bojjal sëñ Amsatu ngaram bu jeexee ñu ñu dem ci sëñ ngaram sëñ Sooybu bu ngaru suñ sooy bu jeexee ñu dem ci ngaru suñ suñ suñ seliw nii la ko doon def ba ngar yi jeex ngar yi itam borom kër yaako ko daa bojj buñ ko bojjee ba bu saako ñu door ko ci am naat moo xam ne nii dafa séddale ngar yi ba noppi yàlla dogal soxna moomi ñëw fa te sant ñu séddale ngar yi ba noppi mu daal di may woo ne ma ah ngar yi de séddal naa ko waaye léegi damaa defee nag ne soxna mooy mënu fee ñëw te joxuma ko ci dugub ji ma xam ne na ngay def na nga dem ci ngar lu ne nga natt sa ñaari mètre ñu boojal ko soxna mooy ma ci ngar lu ñu natt ñaari ñaari ñu boojal ko soxna bañ ko boojalee mu di saako ñu dikk andi ko ci biir kër gi. ni soxna moomi ni yaakob soxna moomi ni akasa nga xam ne léegi moom mos a def loo xam ne nii du yàlla tax mu def ko ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa dara mu mos a yëkkat loolu itam ku ko mas a nax coo sañ ko nax saa boo waxee wutut Sëriñ Tuubaa nag moom loo ko wax ah dina ko déglu si noppam bu ko mën a def dina ko def loolu daal man laa xam si moom xam naa tawe it moom gisuma kenn ku ko yem ak moom ndax man day toog naa Daaru Salaam mu xëy benn saako pepp fa ne benn benn saako muy dem ni man de maa ngi dem benn saako bu jóg moo fi ne yàlla dogal ba mu demee bay tolloog ba weesu di agul ñi fii dëkkum dëkkum jenn bi mu dem ba dool tool Tuubaa ci tase fa ndawal sëñ Talatu Busa mu jógee mbar mu ñëw taxaw mu ne ko foo mu ne ko sëñ Talatu dañu ma yónni ci kër ga mu ne ko ngir lan mu ne ko nee daal daa bëgg lu jëm ci kër ndax kër ga tey dara dafa yëndu a daal di bind ab lettre ne ma saako ko nu jox ko kon noonu noonu jàpp ci yàlla mu jàpp ci yàlla waaye teewul yàlla